salaatu lazi fi kulli shahrin wa fi safar xamaani ala maaxin maxal xabsa wa safar salaatu lazi fi kulli shahrin wa fi safar xamaani ala maaxin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 إنما السبيل ولا تجادلوا الله من كل كريم أكرم ومن قادره تكرموا أسلم له كلك عن إيمان ولا سمع لسان الرحمن واجهه بشكر ولا كفران تكيذاب وما نيران بسم الله الرحمن الرحيم ألف لله من ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالخيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika hum muflihun bismillahi arrahmani irrahim qul huwa allahu ahad allahu samad lam yalid walam yulad walam yakun lahu kufuwan ahad bismillahi arrahmani irrahim qul huwa allahu ahad allahu samad lam yalid walam yulad walam yakun lahu kufuwan ahad bismillahi arrahmani irrahim qul huwa allahu ahad allahu samad lam yalid walam yulad walam yakun lahu kufuwan ahad bismillahi arrahmani irrahim qul a'uuzu bi rabbil falaq min sharri ma xalaq wa min sharri gaasiqin izaa waqab wa min sharri naffaasaati fil uqad ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر وسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس دوها وختم القرآن بسم الله الرحمن الرحيم صدق الله العظيم وبلغ رسوله والنبي المصطفى الكريم ونحن على ما أخذ ربنا ومولانا من الشاهدين اللهم ارحمنا بالقرآن الكريم وانفعنا بلا رزق الحكيم واجعله لنا حجة يوم الدين اللهم انفعنا بما أسرفت فيه من الآيات وسكرنا بما ذنبت فيه من المسرات وكفر بتلاوته عنا سيئات إنك مجيب الدعوات اللهم تقبل منا ختم القرآن وتجاوزنا ما كان في تلاوته من الزهي ونسان وتحريف وتقريم وتأخير أو سيارة أو نقصان وتأويل على خير ما أنزلته أو تعجيل عند تلاوته أو كسل أو سيق لسان أو وقف بغير وقف aw idxaamin bi xayrin idxaamin aw ishaarin bi xayri bayaanin pakatuhu min ala tamaam wal kamaal wal mahsan min kulli alhaan warsuqnaa fadlan man xaruhu mu'diyan xaqahu ma'al a'daa'i wal qalbi wal lisaan وهب لنا به الخير والسعادة والبشارة والأمان ولا تقسم لنا بالشر والدلالة والطغيان ونبهنا قبل المنايا من نوم الغفلة والكسلان وأمنا من حساب الخبر ومن سؤال المنكر والنكير ومن أكل الجدال وبيض وجوهنا يوم البعث وطهر رقابنا من النيران ويمن كتابنا ويسر حسابنا وسقل ميزاننا بالحاضرات وثبت أقدامنا على صراط وأسكنا وسط الجنان وارزقنا جوار سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام وأكرمنا بالخير يا ديان اللهم اجعل القرآن الحسن ربها قلوبنا وجل أحساننا واصلح همومنا وخائدنا وسائقنا إلى جنة النعيم اللهم اجعله أنيسنا في المسجد ومصاحبنا في الوجد ومصباحنا في السلمة ودليلنا في الحيرة ومنقذنا في الجنة واعصمنا به من السيق والأهواء وكيد الأعداء يا رحمن يا رحيم اللهم اقسم بالسهارة آجالنا وحقق بسعادة آمالنا وقل بالحافية خدونا وآثارنا واجعل إلى رحمتك مسيرنا ومعارنا وصل سجال حفظك على سنوبنا ومن علينا بستر عيوبنا اللهم اجعل تقواك سائرنا وثقة بك سخرنا واهد خالنا وأمن من الجوع والغف بلادنا وسائر بلاد المسلمين يا رب العالمين اللهم بلغ ثواب ما أخرجناه والنور ما طلعناه بروح سيدنا ونبينا محمد عليه الصلاة والسلام آمين ولأرواح آبائه وأمهاته وأزواجه وذرياته وأصحابه رضوان الله تعالى عليهم أجمعين آمين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 salli ala nabi wa sallim bi bihi hajata kulli muslim asbil suturi aslih umuri kasir xuyuri bila bilaay yaa man ajaaba man istajaaba xam li jaaba bi sama jaay ñu sabaram boole nangul te jotal yoolu ci sëriñ bi li ñu ci yéene ci bis bi te bëgg ko lépp suñu borom dajalee ju kawe suñu jort suñu bi daal li ciy séyéedri ak yéene ñu baax ñëpp suñu borom àggale ko lépp ñu dayee ci ngërëmal sëriñ bi ñu yàgg koo jëf yàgg koo teewee lépp lu ñu jëf rek sëriñ bi nangul bismillahi rahmaani rahim allahuma salli ala sayyidina muhammadin wa sallim ñu ngi leen di nuyu di leen sant ci jataay bi ngeen xam ni moom ngeen toogee di jataayu lislaam ñu taxawee ko ci weeru lislaam ki nga xam ne moo liggéeyan liggéey bu réy bi nga xam ne moonu ci boole muy seexul xaddim bisam bi nekk ci yoon di ñëw ñu di ko waajal loolu cër bu réy la ñu ngi leen di sant ñu ngi leen di gërëm suñu xol sedd na bu baax bëgg nañu kàddu yi gën a yaatu ni waaye yéene ji am na waaye wéradi gi ak e, ñàkk kàttan gi rek waaye xol bi matale na ko jërë ngeen jëf. asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu yéen mbokki Touba Ndoukoumane ak mboolem tund Bawol bépp rek ñu leen siyaare di leen baalax di leen baalax baax baax di leen jot lu nuyoo suñu kilifa gi nga xam ne bàyyi ko muy sëriñ Cheikh Fall Gueye ma moom sëñ Maguette Dia moom si Adama mi nga xam ne moo fi nekkal si aadama moo fi nekkal xalifu si Adama ak mboolem njabootu kër Cheikh Mbab gi gépp ak mboolem njabootu suñ suñ Malick Assa ak mboolem njabootu Mbab gi yëpp daal xam naa jumul dina jur sax waaye mbokk yaa ngi ñëw xam naa nawet bi rek ak xat-xati jamono ji waaye ñu ngi doolee sant suñu borom tabaaraka taala di nuyuwaat baax a baax di nuyu suñ mbokk suñu xarit suñ Abdou Khadir Fall ak imam Sarr ak mboolem imaam yi fi nekk yëpp rek leen jaajëfal baax a baax leen nuyoo nuyu tudd sëriñ Seex nag ci eh, am nuyoom ak santa ak ñaanam ci waa dëkk bi xam naa fa ñuy daa génnoon génn xaw yàgg xam naa ñooy ne ci ndigalu sëriñ bi ci waajtaay màgg gi fa ñuy ne ci mbala mi waaye moo amoon na yéene teew fi sax waaye doo boole mook taawam ba léegi sëñ maam Seex ak sëñ Seex Mbàkke ak mboolem ñi bàyyi ak bàyyi sëriñ Gueye ñun ñoo ñëwagul waaye am na njaboot gën ku mu yebal sax waaye ñu ngi dolli nuyoo baax di jot li nuyoo bi sëriñ Abdou Lahad di ko toog bi ci sëriñ Abdou Lahad ak Cheikh Moustapha mi nga xam ne mooy rakkam di leen dolli nuyoo baax a baax di leen jaajëfal baax a baax nag di santaat yàlla subhaanahu tabaaraka wa taala di ñaan ci barke Alxuraan karim yi nga xam ne moom lañ fi sos tàmbalee ko nañ ko tàmbalee ci bisimilah rahmaani egg ci alhamdulilah ban benn dog ci am ca ndaje ci ngërëmu sëriñ bi di gën a santaat baax a baax suñ mbokk suñu Abdou Lahad di ko jaajëfal baax a baax di santaat baax a baax di ko ndamoo di ko ndamoo ak mboolem waa dëkk bi ndax li ñu ko jiit leen wax rek moo mat sant borom ndax ki nga xam ne daa xam Alxuraan di ko xamle moo ëpp maa doon kon ginnaaw wax na li jiitu at yi si ginnaaw diggante ci tàgg na fi ñoo xam ne mën noon fee wàcc kaay bi ci diggante bu néew kon loolu ab liggéey la na sax dàkk akuk taalibe ak ngërëm suñu borom tabaaraka taala moom daal ñu ngi loolee nuyoo jot lu nuyoo mbokk yëpp rek di ngeen jaajëfal baax dafa see ànd yéen bis bi rek ci jàng alxuraan karim ak jàng xasida ak salaatu ala nabi ak lépp lu baax loolu rek ak bernde ndax ñun murid moom dañoo baaxoo bernde lu jug lu ne dañ ci dul bernde kon ñu ngi delloo santaat suñu borom di sant képp ko xam ne sa jëf ñëw fi rek wala sa yéene ñëw na fi rek wala nga teew ñàkk fi rek ñu ngi sant baax a baax ci turu sëriñ kilifa sëriñ Cheikh Fall Gueye kon jaajëf ñu ngi santaat baax a baax di leen nuyu ñëpp di leen jaajëfal baax baax wasalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu bismillahi rahmaani Euh, bokki jullit yi ñu ngi leen di siyaar bu baax di leen ñaanal jàmm di ko ñaanal jullit yëpp di wax ne dañuy wax alhamdulilahi rabbil alamin waxaat alhamdulilahi rabbil alamin waxaat alhamdulilahi rabbil alamin ndax li nga xamee ne dafi jafe woon lool bi fi mag ñi jógee ak léegi damay wax ne daanaka ay at yu bari la nun ñii danuy doore a ñëw nekkat ndakaaru waaye yàlla dogal na alxuraan jafe woon na fi lool lool lool lool waaye lii ma leen di wax muy seede kii nga xam ne eh, sëñ Jeng eh, nga xam ne moo wax ba sëñ bi ñëw fi ba ma ko jëkk di wax ci sama place la ma ko waxee ca pooru ndakaaru ne ma danoo am sëriñ boo xam ne dafa bëgg ñëw jàngale si fi alxuraan mu ne ko loolu di nun ñëpp ko bëgg ndax alxuraan jafe na fa lool ay magi kese bu ñu dee wàcc alxuraan xam nga ne kon alxuraan jafe na kon na lu ngeen ci mën a taxaw rek na ngeen ko ci taxaw ñu jëli magu sëñ Abdoulaye Guèye mii ñëw fi def fi ay weer njàgg ma dox mu jël keneen indi fi ba yàlla dogal kooko dem mu indiwaat fi moom Abdoulaye Guèye mii Abdoulaye Guèye bi mu fi duggee ak léegi ñaata at nga wax yow Bas ñetti at yi ci la toll waa ñetti at bu ci xale bu tuuti boo xamee ne amagut fukki at ak juróom wàccee alxuraan ñaari yoon kooka jàngalewul jàngale na yal na ko yàlla fay jàngale na yal na ko yàlla fay te nu nun ñii mag ñii la ñu noppal de ndax dañ daan daw di ñëw fii ànd ak mag ñii ñoom ñëpp ñoom sawru ñoom ñëpp di bokk di jàng alxuraan mu yéex lool waaye bu ñu ñëwee léegi duutut am fukki minute ak juróom bu dee kaamil benn kaamil dong la fukki minute ak juróom yi du ko mag kon loolu jar naa sant yàlla bu baax ndukkumaan gii nga xam ne fi la ko yàlla def nag nañ leen ñaanal bu baax ay mag yi fi nga xam ne dañ fiy jógee yal na yàlla dugal leen bar saxu sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam kontaan nañ ci ñoom lool Basiru mii li mu wax nii loolu rek am bi fi mag ñi nekkee alxuraan tupranke war na fi waaye ñetti at yii dong léegi boo fi bëggee wàcc kaamil fukki minute ak juróom lay doon kon loolu jar naa sant yàlla sëñ Abdoulaye Guèye na yàlla guddal sa fan yal na yàlla wéral sa cër man de li ma la gën a bëggee mooy wallaahi la azim ak naaj wu tàng man daf may fekk toujours ci jàkka ji daanaka ñu fa jëkk muy budut bilaal mele maa fay maa ci topp muy Aliou kon moom itam jar naa sant yàlla bu baax ndax bu bu ñu bu ñu commencé bayaan balaa balaa fukki minutes yi mat moom Abdoulaye Gueye dina doxe ndukkumaan yéeg si ngaraaf te kilomètre bu tegal la luñ naaj tàng-tàng imaam wax na ko wallahi lazim koor lu mu métti métti métti wallahi lazim dina dox dox ñëw julli si loolu loolu loolu kenn mënu ko ko fay yàlla rek moo ko mën a fay yal na yàlla fayal nu ko wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu ñu ngi nuyu islam bi yëpp ci kaddu sunu kilifa alxaaji Abdou Aziz Sarr bu Mirina Sarr di sunu wéyjur di sunu xarit di sunu xalifa ñoo ngi leen di nuyu yéen waa réew mi yëpp ci kàddu sëriñ Abdoul Aziz Sarr mu maam ñàkkur Sarr di xalifa Mirina saar di sunu wéyjur di sunu xarit te jii jataay bi ñu toog fii ci kilifteefam ci lañ tooge di nuyu mbokki jataay bi ni mu demee sunu mbokk sunu xarit suñu doomu ndey sunu doomu bàjjan suñu doomu maam imaam Hassan bajaan ak ñim ko bokkal ñépp waaye jóge ngaraaf ñoo ngi nuyu ñëpp di leen ziar di leen baalu xaq te di leen baal ci kàddu sëñ Abdou Aziz Sarr ñu ngi nuyu kilifa gi nga xam ne mu jataay bii tey yàlla dogal na ci kilifteefam ci la soso bokk ko ak bokkam yëpp ñu sëñ Abdou Aziz mi ngi leen di nuyu di leen ziar. nii ngeen ñëwoon ànd ñëw ci kanamam ginnaaw bi ngeen jógee ci moom ngeen jaar ci sunu kër tey jii bu ñuy teew ci teew ci jataayam jataay bi ci ndigalam lañu fi teewe di rafetlu li nga xam ne lislaam moo ko sas te lépp lislaam la lislaam moom tool bi daa yaatu kenn ku ne fa ngay bayee te kenn ku ci ne ba ngay bay yaa ngi yéenewaale sa moroom ci sa biiru sas kon nag su fekkee ni teew nañ fi macha allah di rafetlu ni mu demee alquran jii ñu fi jàng yàlla na ko sunu borom nangu te wàcc ko ci jëmm yu tedd yi nga xam ne ñoo ko doon jàng ak ñiñ ko yéene te nekk ci biir suuf di ko gàttandoo màggal bu tedd bi nga xam ne mooy 18 safar te sëriñ bu mag bi doon ko woote bokk ko njaboot gi yëpp yal na yàlla jotal ko ci yool bi moom itam daraje alquran màggaay bi àgg na foofu. weeru tedd wii tamit li mu làmmoo ci ngëneel yàlla nañ ci bokk ak ñu nekk ci biir suuf ñëpp ndax aw yiw la woo xam ne kenn ku ci ne mën na cee jële loo xam ne soo fi jógee àdduna sa adduna dina jàkk sa alaaxira dina jàkk yàlla nañ fi yàlla mot bàyyi ci jàmm ak salaam ñu dund li ñu war a dund yëpp bu ñu fi jógee tamit yàlla nañ bokk ci yiw yi ñu doon liggéey ci kaw suuf ci dara ji yonent bi sallallahu alayhi sallam lii daal mooy doon kàddu yi ñoo ngi baal xàq ñëpp di leen baal asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu. sëñ Cheikh Fall Gueye mi nga xamante ne mooy fii xalifa Cheikh Adama xam ne lii ñu def lépp bu jàppandee ginnaaw yàlla jëmmam ju baax ji ak ndigalam rek moo tax ñu di ko def ñoo ngi koy siyaar bu baax te di ko nuyu tey ñaan yàlla suñu borom subhaanahu wa taala yàlla guddal aw fanam. Euh, di di jiital it ci nuyoo bi euh, suñu kilifa yi fi nekk euh, di ci tudd sëñ Abdou Khadir Fall nga xamante ne moom ci kër gi la bokk. nga xam ne moom maanaam mën naa ne doom la ci kër gi di nuyu sëriñ Mbacke soxna loo mais nga xam ne mooy suñu kilifa tey ci jataay bi di nuy it waa Ndoukoumane gi yëpp di nuyu it Cheikh Abdoul Ahad di am mbégte lool ci bis bii ndax tey dafa am euh, xar kanam boo xamante ne Cheikh Abdoul Ahad koo wane ci taxawaay bi nga xamante ne Cheikh Adama doon na ko taxaw ci liggéeyub sëriñ Touba bi ndax Cheikh Abdoul Ahad man damaa jaxasoo ak moom suñuy wajur dañoo bokk ba noppi jaxasoo woon kon am naa lu ma xam ci moom sëñ Basiru mi mën na ci seede mbokk yi fi daje it mën nañ ci seede Eh, muy nit koo xamante ni ay atam bëriwut waaye pas-pasam yombut a dab ci bëgg lu baax ndax man gane na ma fële ci sama daara ja ñuy wax kucca ba am fa ak man weer heure bu xëyee fajar lay yow bu jëlee pare ñaar fukki isib alxuraan lay waxafe booba sampagul daara ji cere bi mu ma oowee ne ma bàyyi sëriñ day dama samp daara fële ci ndukumaan laa ko ne yow de sëñ Tuubaa la faye loolu ak alxuraan ndax bëgg gi nga bëgg lu baax ak nekk ci lu baax ak nangoo topp say wajur loolu yàlla fayee ba tax ne da nga am ci alxuraan lu kawe sa njort ak liggéey bi nga xam ne sama am liggéey na ko Serigne Touba kon Cheikh Cheikh Abdou Ahad ñu ngi koy ñu ngi koy ñu ngi koy gërëm te di ko ñaanal bu baax waaye di sant it waa Ndoukoumane ak tund wi ndax ñoom day lu Cheikh def fii ginnaaw yàlla ñoo tax ñu man ko man de damay wax ne bu ko xale rek daroon du ma am ci moom yaakaar ndax xale moom bu gisee lu riir rek mën naa song loola ndax du xam lan la su demee ba ràññee nag mën naa bu fekkee du lu ko gënal wala du lu ko doy mën naa daal di wàññeeku waaye mag moo xamante ni xam na lu baax xam leneen yaakaar naa ne comme dara teel la sey tànk la nga nekk dëgg la te ku xool jotaay bi xam ne mag ñu baax rek a fi nekk mag ñu xam-xamee mag ñu am lislaam mag ñu xam diine rek ñoo fi ne kon si Abdou Ahad li mu nekk am na yaakaar ñu ngi leen di sant bu baax te ñaan ci barkeb Serigne Touba ak Cheikh Adama suñu borom defal leen tawféex ndax lii ku am war koo téye ndaw loo xamante ne dafa ñëw rek di sàmm lislaam waaye nag jaar ko ci yoonu Cheikh Ahmadou Bamba nga xam ne lislaam rek ko ñor te Cheikh Abdoul Ahad ci loolu rek lañ ko yar bi mu tuddee say bi mu juddoo Cheikh Cheikh Abdoul Ahad lañ ko tuddee jox ko ko mu tërbiyee Serigne Sidi Mbacke mu jàngal ko alxuraan boo demee kër Serigne Cheikh Fall mii Serigne Cheikh Ibrahima Fall mi nga xam ne Cheikh Ibrahima lañ ko tuddee di di di di xalifab Cheikh Adama tey boo duggee ci biir kër xam ne lislaam rek fa ñor ndax boo duggee ci biir kër jàkk ngay njëkk a jot jàkk ja lañ njëkk a defar bu yàggut lañ defar bâtiment ba kon kooku ci lislaam la judd ci lañ ko yar ay maamam it loolu lañ loolu lañ ci loolu lañ newoon ba muy Cheikh Adama ak Cheikh baabu ak Serigne Malick ba si ba xamanteeg ba gis Serigne Touba wàcc lépp topp ci ginnaawam mu defaree leen seen tey ak ëllëg kon moom ci lii rek la war a nekk. su ko yàlla tawféexee la dëkk goo xamante ne lu baax rek lañ xam moom lañ doon xeeñtu yàlla dimbali ko mu ñëw ñu jàppale ko ci lu baax ba ba mu taxawal fi lu toll kon ñu ngi sant Cheikh Abdou waaye ñu ngi sant waa dëkk bi sant waa tund suñu xol daal sedd na lii nag damay wax ne liggéey bi liggéey bi Touba ndax ku gis Cheikh Cheikh Ibra Fall mi toog gis waa kër Cheikh Adama yi toog nga xam ne lii Sëñ Tuubaa Sëñ Tuubaa ju dëggu la kon loolu daleen nam xel lool ñoo ngi ñaan ci barke Sëriñ Tuubaa ci kattanu yàlla ak yonent bi ci barke Cheikh Adama ak Cheikh Cheikh ma baabu dëkk bi daal ñëw Cheikh Abdoulaye yàlla bu mu doon bu mu doon ak rëcc ci ñoom benn yoon di sant Cheikh Mouhamadou Bassir mii ak sëriñ bi jàng ndax taxawaay bi ñu taxaw ci daara ji ñun bokk Cheikh Abdoulaye umpuñu xam naa ne bu ñu tuddee ñëpp dañuy juum waaye ñoom am nañ ci ñoom ak ràññee goo xamante ne bu ñuy tudd faaw ñu ñu tudd leen ndax sëñ Cheikh Bassirou ñëw naa fi lu man ñetti yoon ak sëñ bi jàng waxtu wu mu fi ñëwee seen taxawaay daara ji Cheikh Abdoulaye koy wax ak dimbali gi ñuy dimbali alxuraan ak dimbali gi ñuy dimbali Cheikh Abdoulaye ci liggéey bi kon Cheikh Mamadou Bassirou ngi lay sant bu baax te ku dégg sa bi nga xam ne moom nga nekkee yow xam ne li nga nekk dëgg la kon loolu suñu xol sedd na ñi ngi ñaan daal ci barkeb Cheikh Adama ak Cheikh Mababou ak jëmmi Cheikh Ibrahima Fall ji fi toog yàlla dëgëral taxawaay bi dëkk bi yàlla def fi jàmm bis yàlla na ko yàlla def lépp muy ngërëmul yàlla ak yonent bi sëñ Tuubaa xam naa ne kàddu yi rek lañ amoon di ko siyaare ci tam di ko tàmbale li ci xam naa dañuy bàyyi ba ci baas ba di siyaare sëñ Jili moom sëñ Moustapha Waalo ndax moom it lépp moom la ndax mook Cheikh Abdou dañoo bokk lépp Cheikh Adama ak Cheikh ma baabu lenn rek la ndax Cheikh ma dafay mag joo xamante ne mag ju baax la ju bëgg lu baax ba mu gisee lu baax dafa dem jàpp ci loxob rakkam womat ko ba indi ko ci Serigne Touba ne ko bàq bu tooy xëpp nga ni ku ci ñëw jiw de dina sax seex ma baabu di rek ju topp magam la ko la ko seex wax tegu ci baat mu jox baamu sëñ Tuubaa looloo indi lii kon ñoom ñaar benn lañ duñ ñaar kon yàlla yàggal ànd bi ñoo ngi siyaare ñëpp wasalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu ala man

ila Hey لسخير ونار